jàngoro bu mag la yëq bu rëy rëy la téye nañ ko mu ngi fekkati ko ba tey deewul mhm. te pour ñu rendi ko mhm. bu benn loxo tremblé mhm. parce que boo gisee sa loxo da ciy dagg nga taxaw bu boobaa système bi dina dundaat absolument waaw donc euh, tey jii Sénégal am na chance neex dëgg yàlla kaanu euh, nous avons perdu ma yeewu sama xol metti ma yeewu la lendemain jóg liggéeyi dama ne lan la Sénégalais mën a tiire ci alternance bi Mhm. lan la ci sénégalais mën a tirer comme profit profit bi ci sénégalais mën a tirer parce que moi je suis un anti système mhm. mooy na système bi de mooy nañu réformer profondément et qu'on soit très courageux d' accord incha allah donc on espère que système bi dina de alors Ibrahima yow danga nga jàpp ni système bi fay fan la toll ñàdd nañu ko rendi nañ ko wala non non système bi xam nga xam nga xam nga de 1960 ba ba ba ba léegi nii dañu am li ñuy wax ay carriériste de la politique mhm. carriériste de ñoo xam dafa mel ñoo xam ne maanaam euh, mënoo jàpp ni lii la ñuy liggéey man dama doon posé wu benn question daan ñi nga xam ne ñooy ne ci langue politique yi di mhm. politique au-delà de politique bi dem plateau yi mhm. lan mooy seen profession maanaam lan la ñuy liggéey tey boo leen soxle woon ndax ay médecin lañ ndax ay psychiatre lañ mhm. ndax ndax ndax fan nga leen di fekk pour boo leen soxlee parce que yaakaar naa ne politique rek du métier mhm. mais da gis ne am na ñoom ñëpp ay carriéristes de la politique lañ ñoo xam ne bi ma defee ay enquêtes yu xóotu xóot ci nguuru Macky Sall si laa xam ne maanaam même bande d'habits bi la même lobbying bi la même nit ñoom Macky Sall dañu màgg ci diggante bi ay Barthélemy Dias ñooñu ay xale yu politiciens lañ ñu màgg ci langue politique yi. Mhm. boo leen gisee da def ne ñu ngi door a wàll si ak ñeneen ak ñeneen. mais mhm. ñoom la woon seen i i maam. Mhm. maam ya dem bàyyi fi seen i doom. doom yi dem bàyyi fi sët mooy ñoom Barthélemy Dias ñu nekk ay carriéristes de la politique. qui vivent des mandats électoraux et de leurs intérêts crypto personnels. de nga xam ne état ni ñu ko tëggee ak ni muy doxee mooy danga nga ciy bokk. Mhm. bokk ci famille président am loo bokk jabaram. Mhm. nekk xam yaa xam ki kii mooy sa ndijaay réew mi ci loolu la doon dox. Mhm. maanaam réew mi li ñuy wax mérite. mësul ñëw ci ñi nga xam ne ñoo ko méritoo. réew mi li ñuy joxe nit ndombal tànk. liñ lay joxe ay responsabilité làmmiñ bu rëy. propagande tappale ay fen moo la koy jox loolu la preuve. Macky bi muy tànn ku mel ni Kourou Macky. ku mel ni Koura Macky di ko yóbbu assemblée nationale ci ban critère la ko tànne parce que tout simplement làmmiñ bi dafa ñaaw te boo bëggee xam le peuple sénégalais nan la ñu mel taalal sa portable nga dugg ci TikTok sénégalais yi dañu bëgg ay détails ak ay futilité boo xoolee boo doon wax xam-xam ci réseaux sociaux yi wala ci média kenn du la seetaan tey ñi ngi seetaan phénomène bu doy war yaa ngi gis ay xale yu jigéen ñuy génn ci réseaux sociaux yi di dénigrer seen seen i jëkkër di leen yàq lu mel ni xamee ci réseaux sociaux yi. di yàq seen der parce que dañu nekk société boo xam ne dafa nekk en crise mhm. te crise boobu dafa étendre sur tous les membres de la famille bi nga xam ne ñoo ko composé. Mhm. ak la désintégration de la de la famille fu ñu nee ba jigéen. toog ci télé am fitu toog ci télé ay caméra tim la nga naan sama jëkkër nii sa vie privée nga koy étaler mhm. dénigrer góor ñi te yow góor ñooñu ngay yàq seen der amuñu possibilité yow ñëw ci média boobu nga toog di wax Mhm. te loolu ñu ngi koy seetaan te mi ngi jur musiba. c' est pas question ko góor laa de moo tax ma wax ko de. Mhm. mais Sénégal dañu am dañu am crise am ay problème loolu moo fi amoon. Mhm. loolu nag metti askanu Sénégal ñu koy muñ ñu di leen dóor ñu koy onk ñu koy muñ ñu di leen dóor ñu koy onk ñu di ko muñ. bu ci lobby yooyu ñenn ñi ci këru diine yi dem ba bokk ci lobi boobu noonu. absolument. Ousmane Sonko bi mu feeñee ci làngu politique bi dafa am yaakaar bu mu jox ndaw ñi. yaakaar bu rëy ci discours am ci comportement am ci doxalinam nangam ak nangam. ñu jug wooteel ko mu gaje yaakaar boobu la ñuy ñaan yàlla bu yaakaar boobu noonu tas. loolu rek lañu dañuy wax ne yàlla bu yaakaar boobu noonu tas. donc kon man li ma gis. mooy réew mi. yàlla defal nañu teraanga boo xam ne si sous région bi. réew yi ko am bëriwul am nañu ñaari hectare suuf yoo xam ne mën nañu ko bay loo fa bay mu sax. te pour nga lekk ba suur. Mhm. naan ba màndi sa lépp yomb. Mhm. maanaam yow waroo dépendre ci yeneen réew. boo xoolee mhm. Sénégal li ñu fiy lekk lépp. liñ fiy lekk bu dee cent pour cent. quatre vingt yi. bitim réew bitim réew lay jóge maanaam fukk yi mooy jógee fii nii ci réew ci réew. te Sénégal bëggul li mu defar moom. tey boo bayoon ceeb. sénégalais yi ce que dinañ ko nangoo lekk. Hmm, boo demee Mali ay tànn wala dafa am xeer wala affaire Mali boo demee Mali li hmm. tax boolu ceeb di fa jar deux cent francs lay jar Mali. Hmm. ak cent cinquante ak trois cent bu ceere bi mooy Maliens yi ñoo koy bay. ba pare ñoom nangu nañu ko lekk. mais Sénégal fii li ñuy bay. foog ñu dem foo xam ne dañu koy nangoo consommer. même boo leen xoolee bu ñu bayee ba pare multinationales yi fi ne am ay tool ci àll bi di bay ay xaal. ay mango nàngam bu ñu ko bayee ba pare. Mhm. suñuy jigéen lañuy jël ak suñuy doom ci tool yi ñuy liggéey. Mhm. bu ñu liggéey pare ñu def mango yi gën a rafet. Mhm. yi nga xam ne benn sax du si am benn tâche def ko ci ay carton fomp ko bu mu mucc ayib. yóbbu ko bitim réew jaay ji ko mango yi nga xam ne moo am ay sax. moo bënn mhm. moom la ñuy saamaat ci marché bi dañu ko jaay juróom bu pompiteer ñoree mhm. dañuy jël pompiteer bi gën a rafet yóbbul ko tubaab bi mais loolu ma rek est que pour consommation non bu xaal bu xaal loolu état da ci am responsabilité responsabilité bu rëy rëy nan la mhm. ay multinationales ñëwee sa réew suuf soo xam ne say maam ñoo xeex la seen dret tuuru ñu ñëw ñu jaay leen fi ay suuf yoo xam ne ay sénégalais mënuñu ko am ñu dagg fi ay junniy hectares di ko exploiter di bay Mhm. bu ñu bayee ba pare li gën a baax ci mbay bi ñu yéegal ko avion ci bëtu état mhm. yóbbu ko seen réew yow ñu jox la déchet ci ci ci ci ci marché bi ñaata multinationale entreprise multinationale yi fi nekk mhm. yenn xeet yi yor pour bañ a stigmatise ñaata la ñuy fay yi ay deux mille cinq cent journée ay trois mille da ngay gis rang bi ni muy guddee pour ut am xëy laa su ko sim démb si sama enquête laay door a xam ne xam nga man dama doon tàng naan ciment dafa cher mais man dama nekk nit boo xam ne bu ma dara defee problème damay mu ne ay investigation yu xóotu xóot pour ma am mhm. ay réponse ci lool mhm. benn waay boo xam ne dafa yàgg soo Sococim mhm. du ma tudd turam moo ma gis mu ne ma maa ngi lay dégg célébré nga naan ciment dafa fer seer nangam nangam mu ne ma xanaa xamoo ne ciment bi Sococim da ko doon jaay gouvernement bi passé deux mille deux cent francs la ko da ko doon jaay nguur gi ndeke ndeke nguur gi moo koy moo am ñu koy jënd di ko ko jaayal ci marché bi trois mille sept cent cinquante te loolu c'est grave <laughs> loolu sénégalais yi xamuñu ko te li ma la wax kenn du ko dindi laa la wax li ma la tere laa la ko waxee enquête boobu démb laay door a conclure enquête boobu. bamtuwaat ko bamtuwaat ko mu leer. dama ne la <laughs> man dama yàgg toog ma ne Sénégal ñaata usine ciment moo am ci réew mi. Ah. su ko sim xool ñi ngi si seen sixième four kon affaire yi dafa dox ba ñu yokkat ay four yuy togg ciment. mais ciment est-ce que xam nga ne ciment lañ koy defaree. Mm-hmm. bu doon juróomi mbir la ñuy composé pour mu nekk ciment benn matière moo ciy jóge bitim réew lépp fii lay jóge mm-hmm. est que xel nangu na lépp di jóge fii ñu lay jaaye saako ciment trois mille sept cent cinquante lool def ma jaaxle ub sama bopp ma ne loolu mënta nekk lu mënul nekk rek da ngay dem outil réponse dëgg may laaj ñoo xam ne dañu liggéey Sococim ba retraité xam nga ki retraité dara tënku ko mm-hmm. ñu may wax ni ko Sococim di doxee may def enquête di dem seen kër di laaj ñi nga xam ne ñoo doon ba ma yegg ci benn nit boo xam ne loolu moom dafa bokkoon ci ñi ko doon signé moom. Mhm. pour état jaay loolu. Mhm. mu ne ma sëñ bi maa ngi la seetaan télé ngay kaas ciment bi mu ne ma nag tey laa lay wax li xew mu ne ko la xew mu ne ma état bi moo ko organisé noo xam ne pour mu am xaalis te askan bi du ñu xam. Mhm. mu ne ma ciment bi état bi grossiste la si Sococim. grossiste la état di ñëw taxawee biir Sococim état mën na lépp qui peut le plus peut le moins. impôt la ñëwee. ñu joxe ko ciment bi à deux mille deux cent francs ñu dugal ko ci marché bi trois mille sept cent cinquante francs. mais loolu nekkul ay impôts wala ay taxes yoo xam ko ci ajouté parce que aussi euh, dëkk noonu lay doxee. dañu léegi léegi léegi léegi am impôt indirect ñuy wax TVA xaaral mhm. non maanaam impôt bi impôt c'est inadmissible. bu mhm. totaliser il faut faire il faut nga def total. li Sonko si capacité bi produire d' abord ngay foog nga xam capacité de production nga nga fois tonne bu nekk benn saako ciment bu nekk. nga jaay nga jaay waaw nga jaay ko nga jaay ko trois mille sept cent cinquante état taxaw mu taxawoo état deux mille cinq cent nga xam ne foofu teg sa am banditisme d' état. deux mille mm. mille deux cent maanaam. bandit maanaam dama lay xoola bandit moo tax tey gis nga tey jii. Mm. banditisme d' état mm. te loolu. xam nga nee nañ Bassirou Diomaye Faye demoon na fa je ne sais pas ou pas. je mm-hmm. nee nañ ma demoon na fa je ne mais maanaam maa ngi autorités yu bees yi nga xam ne tabb nañ leen. Mm-hmm. l'état pour tout nañ def enquête. Mm-hmm. dinaa ñëwaat fii si plateau man kenn du ma vaar. alerte alerte boo lancé la daal ma ma tënkal la rek. <laughs> doyen wax na affaire foncier. waaw nga tënk ko rek parce que temps ñoo xoj maanaam gis nga le mal. le mal est beaucoup. beaucoup plus profond que ñun fi ñu koy waxtaane mhm. barke Seydina Mohamed mhm. vu tout ce qui s'est passé dans le pays mu jëm ci foncier suuf nga xam ne mën na taal am réew suuf mhm. ñaata sénégalais la ñu nangu seen suuf jaay doole nangu ko seen moomeelu maam ñu juddoo ci yow tëngéej man falaa juddoo falaa màgge samay juróom-ñaari maam tëngéej lañ juddoo base française bi nekk tëngéej tubaab yi ñeenti tubaab lañ fa bàyyi si presque quatre kilomètres carrés laa la wax quatre kilomètres carrés xam nga lu mu doon. Mhm. tubaab yi ne fa am fa seeni néeg di mandi di jël ci jigéen ñi di leen tëdde mhm. ñi dëkk foofu juddoo fa màgge fa. Mhm. bu ñu bëggee bay ñoom. dañuy bind lettre tubaab yi ne foofu tubaab yi àll leen ñu bay. te dañ leen di surveiller loolu ndax xel nangu na ko ay tubaab ñëw sa réew. am fi plus de kilomètre carré di la àll suuf ngay bay. ba pare di la boo xamante ni. te cependant prison yi mi ngi am problème état mi ngi soxla état mi ngi soxla suuf gis nga kii dinañ ko dinañ ko toj fii sans limite. kii plainte la boo xam ne. Hmm. benn waay bu ñuy wax Basirou Diallo. moo ko hmm. plainte le 13 mai 2024 tribunal bu tribunal bu bu bu bu Tëngéej. mi ngi ko hmm. adressé délégué procureur bu bu bu Tëngéej. plainte bi mu ngi visé ñaari doomu aadama la visé du ma tudd seen tur. mais kenn ki ku jege. benn euh, këru diine bu mag Sénégal ku ko jege la. Mm. boo xam ne yàgg nañu ko tudd si si suuf. Mm. plainte bi loolu la visé ne ko caméra bi jëm. moo tax parce que ñun dañuy bëgg bu ñu toogee ci média bi di wax ci dara. ñu dem mm. uti ay preuve moo tax ma ne la ba ma ciment bi jaaxlee man dama ci jug. te indil naa Sénégal ay réponse dëgg gis nga bii beneen promoteur la bu ñuy wax Ibrahima Diop boo xam ne état du Sénégal amel nañ ko 3 milliards état wu Macky i xoolal kii famille Euh, famille kii la famille famille Combaan. Mhm. famille Combaan et consort ñoo jox mandat ki ñuy wax Ibrahima Diop mu nekk promoteur. Mhm. si ay suuf titre foncier. Mhm. numéro quinze DP. devenu TF 4603 DP. et le TFN 246 DP constituant une superficie de 43 hectares. mu nekk depuis deux mille dix neuf mbaaw ñu néewal ko doole jàpp ko tëj ko kaso yàq darab nangu suufam ci banditisme d'état ci gouvernement wu Macky Sall hmm. bi mu ñëwee seet ma dama ne ko bindal lettre monsieur le premier ministre man dinaa ko appuyer man aw ma benn problème pour gis Ousmane Sonko wala pour jox ko lii. Hmm. na moo tax ma ne ko joxu ma wane ko ci média bi. Hmm. Ousmane Sonko jot sa dossier. maanaam lii dafa nekk ay preuve yuy wane ne ñi fi nekkoon maanaam li ñu luubal si suuf lii xoolal firnde la boo xam ne. kenn mënu ko contester lettre yëpp mu ngi ci biir décharge yi lépp. Mhm. mi ngi ci biir lépp. lépp luy preuve. Mhm. lépp luy preuve luy wane ni ñi ko jox mandat. Mhm. procès verbal réunion bi ña ko joxoon lépp. lépp ngi fii. mais ñu jaay leen doole yi état. d'accord fii. ñaari kilifa diine yi mag ñaari benn ku sës si kilifa diine la ñu plainte. mujjul fenn mais le frère première dame lan lañ ko jàppee. Adama fay lan lañ ko jàppee. mais un milliard de francs CFA la ñu ko jàpp ci wàllum ci attends pour moi deux cent soixante millions. deux cent soixante quinze. te plainte yi mhm. yeneen plainte dina ñëwaat. Mhm. donc ce qui se passe c'est catastrophique. Mhm. c'est chaotique où des générations sont sacrifiées dans ce pays. sëñ bi. sénégalais yi am nañ ngor. sénégalais yi am nañ jom jeunesse bi bëgg nañu dara. mais réew mi bëri na yàqu-yàqu yegg na foo xam ne. maanaam foog mu am saabu bu mag. am fóotkat bu mën a fóot. ñu fóot ko maanaam système bi foog ñu rey ko dinañ ko dinañ ko ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu dee. te bu ma sañoon gis nga mu yor nii moom. bu ma sañoon gis nga Ibrahima Diop bi waa ji ngeen invité ko ci plateau bi. amul benn problème façon ah, loolu mooy président des promoteurs bu Sénégal. amul problème léegi dinañu dañuy continuer rek. affaire famille Thiombane bi yàgg ngeen ko dégg ci presse bi. si ci ñëwaat incha allahu rabbi parce que tamit buñ ko naree topp rek amaana dañuy ah. génn bi nga xamante ni moo ñu fi teg aussi mm-hmm. maintenant rek justice système bi nga ni ñu ngi ciy wax tey mu ngi naan changé wul donc yow da nga jàpp euh, en tant que pro Pastef je peux dire ainsi koo xamante ni ànd na ak régime Diomaye Sonko. Hmm. donc tey yow ban gis-gis nga am ci système boobu. waaw ban solution peut-être ngay proposer. Guy Marius Sagna il est dans son hmm. xam nga moom déjà ñëpp xamee nañ ko ci ci ci yoonu Pastef. Hmm. mais aussi tamit moom bëggu trahir conscience am. te bëggul trahir aussi population bi donc il faut lu muy décrier mu koy gën a continuer di ko décrier parce que aussi loolu mooy dimbali aussi ñi nga xam ne ñoo fi nekk. parce que ñi fi il faut leen wax réalité. bon euh, si système bi kenn kii wugul c'est normal parce que euh, on n'a même pas euh, changement bi mënul nekk lu lu lu lu lu mhm. parce que euh, deux mois rek dañ fi def. c'est-à-dire Mamadou Mamadou dogguma la rek juste quelques secondes c'est faut que yi comprendre. Mhm. Mhm. ne maanaam fi mu nekk nii Ousmane Sonko ak son excellence ak les les membre du gouvernement maanaam système bi administration bi. Mhm. lañ nekk di càmbar di ko defar. tant loolu jagul Sénégal mën a jag. Mhm. waaw déjà état des lieux. Mhm. donc si ban pour man sax si période état des lieux lañ. lañ toll waaw ñu xool par exemple ñu ngi wax déjà ba tey ñu ngi nommé. donc <laughs> nomination yi jeexagul. donc euh, pour naan système bi changé na donc euh, kii ji bi wax na ko léegi. déjà mën nañu cibler fi nga xamee ni tey moom la ñu war a attaque pour changer pour ñu yëg ni système bi changé na déjà wax nañu affaire euh, suuf si. ñu ngi ci wàllu littoral bi gis gisoo ko. man personnellement kañ laay gëm ni ñoom ñu ngi ci. mooy ñu ñëw raser littoral bi yëpp. évidemment amul sax ma dem tëjoo. mais jàpp nga ne aussi loolu possibilité la. mais lu war a mais gis nañ fi président bu ko def euh, kii gis nañ fi ñu ko fa Maroc. si tu boo demee Maroc ñoom seet littoral bi dañ ko récupérer mhm. mais euh, ñun peut-être demuñu yenn dëkk